jaay sama gars yi na fan si bàyyi naan dib du moroomu ngaaka du moroomu ngaaka te mu consacré que un son entier si naka laaj ko quatre questions dina lu tax nga ne yow yaay king bi si naka yow ngaaka foo ko teg dib ñu ne lu tax mu ne ah mais tàmbali naa tidnaa fi sax dib ne ne naa tidnaa fi sax roi des arènes bi du ma ko joxe moom isant fil ñu ne foo ko teg mu ne li fi def dix billahi du ay wax xoolal rek waaw les chiffres parlent rab naa jamono Zidane Juventus mais tamit dama dama moderniser sama bopp dama ko mise à jour Camavinga Vinicius Bellingham isien fil ñu ko mais Ngaaka dafa am xaalis mu ne déedéet déedéet déedéet man damay nelaw ci cash ci biir banque damay nelaw ak cash ñu kon léegi loo fas génne mu ne dina ma dégg saa bu ginaar di sab ne dina ma dégg Ngaaka Blindé dina ma dégg saa bu ginaar di sab non kon dem leen déglu waaye si naka kon yaay king bi si naka ah Ngaaka moom question lay laaj Ngaaka nekk yaay king bi si naka 10 ans maa ngi fi isien fil la ma fi def du ay wax gis nga ay fil mën na rab su ma indi Juventus bu yàgg ba indi Camavinga Bellingham ak Vinicius ah di nga ma dégg saa bëgg naa di sam ngaa xam leen de génn boobu ñu xam non ngaa ko non non ngaa ko foo nga bi non ngaa non ngaa ko bi baa foo ngeen bëree quoi Eric Favre waajal de baa ngay xeeñ waaw